lépp mu téyeel la ca nekk.
nga jox ko sa genn wàll.
nga jox ko sa genn wàll.
mu téye genn wàll.
mu téyeel genn wàll.
boo ko joxul dara.
boo ko joxul dara.
du la téyeel dara.
du la téyeel dara.
mu téye la da nga ko jox si lépp.
nit yàlla yi da nga koy jox sa lépp.
mu téye la si lépp.
mu téyeel la ca lépp.
kilifa gi nee na Moussa.
kilifa gi nee na Moussa.
ci mën la ni yàlla boo ko joxee lépp ci rek.
woon ci woon ci woon mu doon lan yàlla boo ko joxee lépp rek.
mu téye la si lépp.
mu téyeel la ca lépp.
yonent yàlla Moussa.
yonent yàlla Moussa.
dafay sàmm ay bëñ.
dafay sàmm ay kër.
ñoom ci xur woo xam ni.
ñoom ci xur woo xam ne.
la fa nekk ci till.
la fa nekk ci kii.
moo ëpp bëñ ya.
moo ëpp béyee.
jant bi so.
jant bi so. ne dama ni.
ne dana ne.
xur wi.
xur wi.
li fi nekk ci till.
li fi nekk ci kii.
moo ëpp bëy yi muy sàmm.
moo ëpp béy yi muy sàmm.
jant bi sono.
jant bi so na.
mu ni yàlla maa ngoog.
mënu yàlla maa ko.
laa taaxuduhu sinatun.
laa tàkku suuf si la suuf.
wala nawmun.
wala noonu.
doo nelaw doo gëmmeentu.
yow doo nelaw doo ko mën.
yàlla maa ngoog yaa ngoog jur gaa ngoog.
yàlla yaa maa ngo. yaa ngo. jur gaa ngo.
mu jëkki ba fajar.
nee mu jëkk ba fajar.
ya mu doon def mu def ko.
nee la mu doon def mu def mu ko.
ne ah naa dem seeti jur ga.
ne ah naa dem seeti jur jur ga.
bu fi benn béy desee sax.
bu ca benn béy desee sax.
ma rey ko nu jëfandikoo ko.
mara yi ko ñu jëfandikoo.
mu ñëw.
nee mu ñëw.
fekk till ga ëpp ci till yi. waaye till bëgg ni bë- till bëgg a béy.
waaye nit yi lu bëgg a béy.
lekkatu ko xanaa da ko sàmm.
lekkatu ko xanaa di ko xam.
daal ni ko kun lii kama urid akun laka kama turid.
nee yàlla ni ko kulli kama uridu. akul laka kama turidu.
ku def na ma ko bëggee ma defal la na nga ko bëggee.
nee ku def na la ko bëggee ma defal ko la ko bëggee.
kon Hadj Abdoul Aziz.
nee kon alxaaji Abdou Aziz.
bi coow yi bëree xale yi yëg fu ne ñuy wax.
nee bi soo bi bare xale yeeg fu la ñuy wax.
may leen gis ngeen xilaafa gi ñooy wax Mansour Khalifa.
nee man leen di jël xilaafa bi ñu wax Mansour Khalifa.
ak Mansour borom daara gi.
ak Mansour borom daara.
xamal ne am naa yu ma ko dàqal yoo xam ne moo ma garanti yooyu.
xamoon ne am naa ñu ma ko dàqal yoo xam ne. ñoom ma garanti réew yooyu.
sama papa daf maa woo jox ma leetar.
nee na sama bopp dafa maa jox ma leetar ndax ñoom ñaar àggoon nañ foo xam ni.
ndax ñoom ñaar àgg nañ koo xam ne ku am sa leetar jox sa morom.
ku am leetar jox ko moom ku ne xam ne ñu tontonti.
wala am na ñuy tontonte maa ngi ñëw fekk mi ngi jaaxal.
nee na maa ngi ñëw fekk moom ñu ngi jaaxal moom turandoo moom dafay sama turandoo waaye daf ma bëgg.
nee na moom day sama turandoo waaye jox ma ko daana fanaan ak man ci benn lan.
daanaka fanaan man ci benn la am naa yoon woo xam ni.
am naa loolu loo xam ne dafa ne ma danga may gunge ba Thiès.
daf ma ne da may dugg ba Thiès
ma maa ngi war a jàng si de.
maa ngi war a jàng si de ñu ñëw si xaar cinq heures.
nu ñoo taxaw cinq heures ñëw Thiès.
ñoo Thiès Pout.
pour Sébikotane.
ci Bukutaan Jas.
jas Cikki.
Cikki Popenguine.
Popenguine.
Ngeexoox.
Ngeko Banja.
Banja Ngapuru.
Ngapuru Yeen.
Yeen So Caajaay.
Caajaay.
Soman.
Soman.
Ba Mbuur.
Bambu mu ne ana Youssouf Fall.
mu ngi egg ana Yusufa dama nga xotti ko nag mu ñibbi daal.
demal na nga xottil ko waaye mu ngi bisaar maa ngi ko fekk mi ngi jaaxaan.
nee na maa ngi ko fekk mu ngi jaaxal ñaar ñoo dàq bind ci kër Alaaji Malick.
nee na ñaar ñoo dàq bind ci kër Alaaji Malick Alxaaji Mansour.
Alaaji Mansour ak Alxaaji Bachiru Diop.
ak Alaaji Basiru Diop
ndax son papa tu- position bu mu nekk rek.
nee na sama papa position bu mu nekk te ajjabtu.
nee na ajabtu min man yabtagi qurba rabbihi.
min man yattaqi qurba rabbihi bi ma koy bindal dafa defeenu.
bi ma koy bindal dafa defee ci loxol boppam ak sharxa ba yëpp.
ci loxol boppam ak saxaaba yëpp mu ni kii maa ko laaj di rajaale ko ci Amad Lo.
mu ngi kii maa la ko laajee jaara ko ci amatul maa ngi ko fekk mu jaaxal.
nee naa ko fekk mu jaaxal mu ne Amadou negal ma yóbbante sa papa waaye.
mu ne waaye amatul yëgal ma nga bëtt sa papa waaye ba demee ngoon ko sa papa ba xam.
boo demee dama ko sa papa ba xam mu ne fa yaa Ahmad al Mansour najdi xalifati.
mu ne ayaa Ahmad al Mansouri najd al xalifati balaa zilta Mansuuran la daa kulli wijati.
falaa zilta Mansuura la daa kulli witt yow Mansour doomu xalifa.
yow Mansuur doomu xalif foo jublu yàlla nga fekk ndimbalal yàlla.
foo jublu yàlla fa fekk ndimalal yàlla ma jox ko sama papa.
ma jox ko sa papa mu ne ah doom.
mu ne adoom kon loolu neex na di.
loolu yow neex na de amiin.
amiin man ne ñaanu El Hadj Mansour ga.
man ñaan Alaaji Mansuur ba ak amiinu xalifa gi.
ah Amine Khalifa dama dàqal wilaaya yeeg.
moom a dàqal wilaaya yeeg bii nag.
bii nag def si tey.
def ni tey dama ñëw jàkk saa di jëf si góor gi.
dama ñëw gàttal bi jël ci góor loolu yàgg na.
loolu yàgg na sama turandoo.
sama turandoo sama papa Massane di dem jumaa.
bu sama papa mu tànn jël jumaa maa jóge ci kër gi.
maa ngi jóge ci kër gi jëli sama turandoo.
jël sama turandoo indi ko ci góor gi.
andi ko ci góor gi ñu dem jumaa.
mu dem jumaa dafa laa jàppee fii ñu nekk ci jal bi ba tey.
bi Alaaji Abdaas nekk ci jàll ba tey fu mu mën ci nekk.
fu mu mën ci nekk maa jël sama oto.
maa jël sama oto ànd ak gaañi.
ànd ak gaañ jëli ko.
jëli mu toog.
mu toog maa ngi ko fekk mu sol turki bu nooy.
nee na maa ngi ko fekk ma koy suuf ci bu noor ma dem ba yoor sama loxo.
nee na ma dem bay yor sama loxo mu ne muñal ma tuuti.
mu ne ma mel na tuuti ana Maxtaar Kébé.
ana Maxtaar Kébé Maxtaar ñeenti béy di wax ko.
Maxtaar ñeent
loolu la ma dàqal xalaat
شمس ولا غربت إلا وأنت منى قلبي ووسواسي ولا جلست إلى قوم أحدثهم dafa wax ne tallaahi maa ngi giñ ci yàlla man cheikh alxaaji abdul aziz si ne maa talaat mustafenk mukk shamsun ab jant wala garubat te musta so illa wa anta muna qalbi wa waswaasi lu dul nga xam ne yow cheikh alxaaji mohamadul mansour yaay sama mébétu xol te itam sama xol bu lambee yow lay def ba ca tegu daal mooy wala tanaawaltu شرب الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك في الكاس ولا تناولت مسما جت لكم مك شرب الماء تنان نخ من عطش تمر إلا رأيت لدون خمنا جسنا من الحاج عبد العزيز خيالا أجانير منك يو في الكاس تكاس بما ينامي واو واو سجم واو
xalifa bi nee na bayt yooyu de sama ñaanu turandoo googu nee sama ñaanu turandoo googu ak lii alxaaji abdul aziz wax ak li alaaji abdu asis wax alxaaji abdul bi gi ñu lit nee alaaji abdu bu giñu nit ñëpp gëm na ko nee ñëpp gëm na ko du waxantu du defantu nee du waxantu du defantu maa ngi giñ ci yàlla tàllaahi nee maa ngi giñ ci yàlla tallahi maa talaat du fenk maa talaxat du fenk shamsun jant samsun jant wa maa garubat wa maa qarubat wa maa qarubat
du so du so luñ ko tegati lu mu ca tegati إلا وأنت منى قلبي illaa wa anta munaa qalbi nga dee du yow mansuur ndara bu yow mansour yaay sama mébatum xol yaay sama mébatum xol yaa cay jax-jaxali yaa cay jax-jaxalit
wa maa jalastu wa maa jalastu li aqwaamin li aqwaamin uxaddisuhum uhaddisuhum illa wa anta illaa wa anta xadiisi hadiisi bayna jullaasi bayna jullaasi man alxaaji abdul aziz nee man alaa jabdaasi lu mbooloo bari bari wër ma lu mbooloo bari bari wër ma may waxtaan ak ñoom may waxtaan ak ñoom waxtaan wi du jeex mukk waxtaan wa du jeex mukk te rabbu ma la ci yow mansuur te rabbu ma la ca yow mansour wa ma tanaffastu wa maa tanaffastu masruran wa mubtaiban masruuran wa muqtaiban illa wa dikruka maqrunun bi anfaasi illaa wa dikruka maqrunun bi anfaasi masuma nooyi ngir njàqare nee mosuma nooyi ngir njaqre masuma nooyi ngir kontaante mosuma nooyi ngir kontante ndare yow mansuur ndara yow mansour sama nooga sama nooga dañ koy lënkale dañu koy lënkale ak yow ak yow bu ma nee nii bu ma nee nii mansuura mansoora su ma nee nii mansoora
yooyu sax garaaw nee yooyu sax garawul wa ma tanaawaltu wa maa tanaawaltu shurbal maai min atasin sorbal maa min atasin illa wa anta xayaali minka fi lkaasi ne illaa wa anta xayaali minka fil kaasi su ma maree ndox ne su ma maree ndox laaj kaas laaj kaas ñu def ca ndox ñu def sa ndox su ma demee bay naan su ma demee bay naan dafa mel ni sa portale dafay mel ni sa portale mu ne ca kaas ba mooy ne sa kaas ba ma soog a naan ma sogo naan lée ma daxal xilaafa ne lii moo ma daqal xilaafa
te lu ko jiitu ne te la ko jiitu dama jógee ci kër gi di ko ziara damaa jóge ci kër gi di ko siyaara
jàllaay bi mu jóge woon jumaa ja jàllaa bi bi mu jëlee woon jumaa ja ak manto ba ak manto ba la boole jox ma la boole jox ma ànd ak rajas ànd ak rajas lu mu waxati lu mu waxati
هذه هدية الضعيف الجاني إلى ابن شيخنا الكريم الحاني عبد العزيز أفقر العبيد إلى رضا خالقه المجيد محمد المنصور من أعطاه من رتب ما شاءه مولاه أطال عمره العزيز الباقي بجاه من سرى على البراق في نعم وصحة وعافية ورتب ودرجات سامية صلاة ربنا مع السلام على النبي ذخيرة الأنام وآله وصحبه الأعلام والخلفاء أنجم الظلام من هذه لما يكتي هدية هدية الضعيف الجاني kado la boo xam ne mi ngi bàyyi ko ci jaam bu néew doole boo xam ne bii wóoluwul digganteem ak boroomam ci mbaaxam ak ci waxinam ilab ni cheikhina jëm ci suma sama doomu sëriñ alkarimi kadi aji tedd alxaani kadi aji ñeewant jaam boobu nga xam ne wóoluwul boppam ci digganteem ak boromam mooy kan mu ne abdul aziz yi mooy abdul aziz afqaril abidi ki nga xam ne jaam mi yépp moo ci gën a aajowoo ila rida xaaliqihi almajidi jëm ci ngërëmal ki nga xam ne moo ko bind te tedd sama doomu sëriñ bi may wax nag mooy muhammadul mansour mooy muhammadul mansour si man jëmm ja nga xam ne aataahu jox na ko mawlaahu boroomam macha allah ko soob min rutabin ci ay daraja ak i garaat ataala yàlla na guddal al azizu aji tedd ji albaaqi ki nga xam ne moo fi des ba faw yàlla na guddal umrahu aw fanam bijaahi man ci darajey ki nga xam ne saraa rañaan na jógee ca makka jaar baytul maqdis jógee fa def miraaj ci fas wu ñuy wax alburaq ci barke kooku lii ma ñaan yàlla na ko ko yàlla defal fii niamin mu nekk nag sax ci biiri xéewal wa sixatin ak wér wa aafiyatin ak jàmm wa rutabin ak ay da ak ay garaat wa darajaatin ak ay daraja saamiyatin yu di way kawe salaatu rabbina maa alsalaami ala annabi zaxirati alanaami wa alihi wa sahbihi alaalaami walxulafaayi anjumi alzalaami
ah xalifa bi ne mu mel ni kon nee ma ni ko yooyu mu jiital nag yi ko jiitu yi ko jiitu man ko xamoon ñaari bushraakum yëpp moom ko dàqal ma ni ko xamoo ni ñaari busraakum yépp moom ko dàqal
dama ne ñaari bushrakumam yi nee ñaari busraakumam yi bii di sëriñ Moustapha bii di bu sëy Moustapha bii di ba su boppam bii di ba su boppam yii jiitu mu wax ma ko yii jiitu mu wax ma ko sama turandoo wax ma ko sama turandoo wax ma ko sama papa nangu ko sama papa nangu ko moo ma dàqal xilaafa bi moo ma dàqal xilaafa bi ak borom daara ji nag moom borom daara ji nag moom moo ma jàngal ma am xam-xam ah moo ma jàngal maam xam-xam ku dikk mu ne ma jàngalal diw ku dikk mën ma jàngalal diw su dee ma borom daara ji ñu tudde ma borom daara ji ku bëgg borom daara ji defal jàngale ji ku bëgg borom daara ji demal jàngale ji ah dëgg yàlla dama jàng ba am xam-xam ah nee na damaa jàng ba am xam-xam ah astafurlah ah ah astafurlah
dama jàng ba defe ni xam naa dara damaa jàng bokk ba defe ne xam naa dara yàlla bëggul maa mana yàlla bëggul man a
moo tax mu ne fa laa tuzakku anfusakum moo tax mu ne falaa tuzakku anfusakum di leen sellal seen bopp mukk bu leen sellal seen bopp mukk man kay maa xam waaja man kay maa xam waaja waaye ku ne mën a doo moom waaye ku ni mën a doomoom wax naa ko barki dem ne wax naa ko barki dem ma yeen xadir man leen xadir kaamil la kaamil la Moussa di lakk man Muusaa di akmal mu semmal ko mu semmal ko moo tax ñoom nanguñu loolu moo tax ñoom nanguwuñ loolu gis nga sama baay nii ji ji nga Seydou Abubakar billaahi billaahi ku ko xam ku ko xam ba bi mu fiy jóge ba bi mu fiy jóge leetar bu muy bind leetar bu muy bind min abdi rabbihi abi bakar si min abdi rabbi abi bakar si kenn mësu gis leetar kenn mus la gis leetar Babacar si bind ko Babacar si bind ko daan ne leen xalifatul xaaji Maalik naan min min min xalifatil haaji malik min abdi rabbihi abi bakar si ne min abdi rabbihi abi bakar si tukkee na ci jaamu boromam Babacar si tukkee na ci jaamu boromam Babacar si
ndax nag ndax nag
ka toog ci suuf ka toog ca suuf
kenn du ko wàcce kenn du ko wàcce yaay dégg ka toog ci suuf ka toog ca suuf waaye kenn du ko wàcce kenn du ko wàcce ci dikk rek toog ci suuf moom kenn du ko ni joxeel sees bi kay jéem a yéeg yéeg ne kay jéem a yéeg yéeglu kay moo tax ñoom ne moo tax ñoom loolu leen jox ñu jox sa morom loo leen jox rek ñu jox seen bo seen worom boo ne sii doo ko dama gént bi gis na boo nee Seydou Bokke damaa gént bi gis la nangam nangam nangam nangam mu ne alaaji Malik nga gis mu ne ah mu muñ ne ah alaaji Malik nga gis alaaji Malik boo ko nee nangam nangam alaaji Malik boo ko ne nangam nangam mu ji Cheikh Omar mu jiñ Seykh Omar Cheikh Omar boo nee nangam nangam Seykh Omar boo ne nangam nangam mu ji Mouhamadou Ghali mu jiñ Mamadul Xaali Mouhamadou Ghali boo nee nangam nangam Mamadou Xaali boo ne nangam nangam mu ji Ndeye Mbu Mbile ji mu jiñ ndeyi mbili jëf moom itam boo ko nee nangam boo ko ne nangam mu ji yàlla mu jiñ yàlla
kooku kenn du fa yàqule kooku kenn du fi yàqule may leen ñaari bushraakum yooyu le nee ma leen ñaari busraakum yooyu le Mansuuru Mansuuru qad qussistumu xas xussistumoo ma shi'ta min rutabin maa sita min rutabin
min al
min addayyaani هذه الخلي- الخلافة haasi alxilaafatu قد أتتكم بغتة qad atatkum baxtatan منصور mansuuru ما لكم maa lakum فيها fiiha من ثاني min saani خلافة جي xilaafa gi سي مصطفى sëñ Moustapha على البلفات alarba la faatu أجاب دينتكو alaa jabdas denc ko ألتني altine لما دفل لي ci la ma defal lii خلافة جي كت xilaafa gi kat بسيكتي ديكنا له bis ni ki tey dikkal na la تكبتين cig betteel كاكو ko bëggoo ko woon sàkku woo ko bëggoo ko woon waaye nag maa la kum di di ñeel leen waaye maa lakum déet di ñeel leen fiihaa ci xilaafa ji fiihaa ci xilaafa gii min saani min saani nga naan diw ak diw nga naa diw ak diw yow dong yow dong tokkot rek yow Mansoor képp kott dong rek boobu mooy bos boppam nee boobu mooy bo- bosu boppam boo gisee maxtaar ci nii nee boo gisee Mokhtar Kébé mi ak ndey sëfi si ak ndey sa fisi ku ma ci ku ma mere ci ñoom sama yoon ku ma mere ci ñoom it sama yoon dama dégg ko naan xaw ma ku ma mere ci lan xaw ma lan nee dama dégg ku naa ku ma mere ci xaw ma lan daal
ku ma mere ci ku ma mere ci laay ah Abdou Abi ba yegg foofu ah Abiba yegg foofu ku ma me- mere ci laay ma ni nee ma ni maxtaar kebe Mokhtar Kébé
ndey sëfeetu si ndey sa féetu si Mokhtar Kébé ndey sa féetu si ku ma xool ci ñoom da nga ma mere ku ma xool ci ñoom di nga ma mere
sama papa bi mu yebal ndey sëfi nee sa papa bi mu yebal ndey sa fi na ko waxal Mansour ne ko bu mu dem ca réew bi ñaanal ma te wuy si ma ni ko waxal Mansoor mu dem ca raw du ba ñaana ma te wuy si ma Abdoulaye Sëfi ne Abdullah si sëng fi dana amal moo ci ma gannaaw man moo fi mag yebalu ko yebalu ko sama bay baa ngi saa baay baa ngi yónni wu ko yónniwu ko
kilifa ma nga Maodo yónni kilifa mu nga ne Maodo yónniwu ko amul kenn ku mu yónni amul kenn ku mu yónni ku dul ndey sëfi ku dul ndey sa fi sama papa nee na nga dem ci réew bi ziyaaral ko ziyaaral ko sa maam ak sa baay te ñëw wuy si ko saa papa ne nga dem ci raw di siyaaral ko sa baay ak sa maam te ñëw wuy si ko trois heures du matin laa yeggal réew bi ne trois heures du matin laa yeggal raw di alxames ma jaar ruut dañaay alxames ma jaar rut ba ñaay ñëw ba sama tool bi ci mbooro ñëw ba sama tool bi ci mbooro oto bi lànk te bees jàqal oto bi lànk te bés teq la ma ni ah ma téléphone yi wut beneen oto ma téléphoné wut beneen oto mu commencé sédd mu commencé sib taw taw
ma forcé ma forcé ak si rek agsi rek ba maxtaan ak sa papa laaj la la fi ñaar yoon Pape Maxtaar ni ma sa papa kat laaj na la fi ñaari yoon mu war a nekk cinq heures mu war a nekk cinq heures vingt vingt ma ak si rek ma agsi rek mu ngi génne li ma def mu ni génneel li ma def dem bëri laa ci wax benn bayt rek laa ciy wax bushraakum busraakumu mansuuru mansuuru qad wulliitum xat wullitumu alal xilaafati sirral xilaafati mansuur mansuur dëggal bégal def si ki tey bés ni ki tey fekkare xilaafa Cheikh Ahmed Tidiane secret xilaafa Cheikh na Ahmadu Tijaani jox nañ la ko jox nañ la ko
mooy alaaj Maxtaar Diop moo tax alaaj Maxtaar Diop bu baax ku baax la ku amul dégg la ku amuk dégg la fee may denc fi ma denc nii góor gi fi ma denc nii góor gi fekk ko faak yooyu ya fekk ko faak jooye ma ne waa sëñ Moussa yéen li ngeen xam ci yow dañ ko war a def ma ni waaw sëñ Moustapha lu ngeen xam fii de lañ ko war a def Maxtaar Diop dafa ni ma Maxtaar Diop daf ma ni
xanaa déggoo xad wu liitum xanaa déggoo xat moom dégagé wullitum noonu ñëpp moom dégaase nanu nun ñëpp di xat xat wullitum koo méngoo da ngay méngoo lépp nee koo ko ku ko méngoo da ngay méngoo lépp nit nag ku ko bëgg nit na ku ko bëgg
da ngay bëgg waxam da ngay bëgg waxam bëgg jëfam bëgg jëfam
bëgg xalaatam bëgg xalaatam loolu daal alaaji Malick nee looloo dal alaaji Malik ci Muhammad wa min mahabbati wa bi wa bi wa min al mahabbati wa min mahabbati wa min mahabbati nasru sunnati nasru sunnati
wa zabbu an shariati wa zabbu an sariati wal iqtidaau bi siirati wal iqtidaaw bi siirati sopp Muhammad dëgg sopp Muhammad dëgg mooy dimbale diineem mooy dimbali diineem dàkku shariaam dàkku sariyaam roy sunnaam roy sunnaam man alaaji Abdou Aziz ma ne Alaaji Abdou Aziz manuma ko fay mënuma ko fay
yal na yàlla yokk leeram yal na yàlla yokk leeram
sama papa nee na sa papa nee na ma sa maam sa maam mas na koo jëw mas na koo jëw ak i mag ak i mag
booba booba booba ñoom dañu nekk ndaw ñoom dañu nekk ndaw duñu nekk ndaw du ñu nekk ndaw
waaye at yi gënoon naa waaye at yi gënal naa néew néew
mu mu yaakaar naa ni bi ne yaakaar naa ni day
def ci li des ci liggéey liggéey bi day bi day bu bu ñëwee ñëwee lépp dana lépp yem dana yegg nee moo tax
yal na yal na yàlla yokk leeram yàlla yokk leeram nee na ma ne moo tax def naa ci moom fa yóbbu rek def naa ci moom faa iya bu rëy xasida yu bari fa tabaraka ak xasida yu bari tabarakallah ëppal naa sax ëppal naa sax wante wante
ci am yoo xam ne daf ci am ñoo xam ni du saay na du saay daf ci am ñoo xam buur saay na buur saay na buur saay na na da nga góor leen da nga leen naa rek faf buur dee na boo gisee ma wax lii ne boo gisee ma wax lii benn kilifa ma jullit bi benn kilifa mu bind biig ni ma kat ni ma kët nangu nañu xilaafa li Alaaji Abdou Aziz wax nangu nañu xilaafa yi li àllaa jabda si wax Alaaji Abdou Aziz bindul woon sax alaaji abdas bu bindul woon sax wax ku ko weddi boo dee dem safara nee waaye doo bëgg nga may ma dara loo xam ni nga may ma dara loo xam ne dinañ ci mën a jàpp daañ ci mën a jàpp laata ma la jox yooyu laata ma la jox yooyu dëkkoon na laa jox yeneen yi ndax jëkkoon na laa jox yeneen it nga mënoon a jàpp ba yi ñëw yoo mën a na jàpp ba yi ñëw moo tax ma yegg fii tey moo tax ma yegg fii tey ak wax ak wax ngeen bànnu ak ëpp na sax secrétaire baal leen maak bi ngeen di soog a ñëw nag fan yi lu nekk daj na ko ndeysaan daf maa yónnee benn garab ni ma nan ko naan kat bala nga yëg si Amérique laa ko jële xam naa xaw ma ki ma ko doon jox dafa dafa xër muy safeetu mu jox ma ci ñaar ndeke moom benn nga ci war a jël ne xamatuma lu Sénégal di riir biñ ne cinq heures jot na di laa xaw a ximiliku
xaw naa yónnee ci Abdoulaye sax xawoon na maa yónni ci Abdoulaye sax ñu ko nga yeeyu mbooloo mi ni ko nga yuyu mbooloo mi mën naa wax lu mënul nit mën naa wax lu mu mënul
waaye moo la def lu mënul waaye man ta def lu mu mënul
daal di ko téléphoné ci ne daal di koy téléphoné ci bayat boobu mu amee boyot boobu mu amee
mu ne waaye ñu ngi ñu ngi mu ne ah waaw ñu ngi lay bu njëkk ab sëñ daaw yore sali leer ah bu njëkk ab sëñ daawul yore salaire
waaye sali leer ci sëñ la baax waaye salaire cib sëriñ la baax nag ku ñëpp di soxla war nga am sali leer ku ñëpp di soxla war ngaa am salaire ku amul salaire it ku amul salaire it war a am sali leer wala am sali leer
moo tax moo tax ne moo tax rek moo tax rek alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilahi rabil alamin ngeen baal maak wasalaam da ngeen di tàllal rek sëriñ bi ñaanal leen yéen mi leen ah ni mu ko waxee bii mooy première gàmmoom moo tax il faut mu xaw a yàgg si lëf waaye muy yóbbante nu itam ni nañ ko jotalal ñëpp dégg ko mi ngi sant jabaru président de la république madame Elisabeth yónnee na fi délégation bu am solo yónnee fi ay teraanga yu bare bare bari waxit na ko sëriñ bi ñaanal ñaanal réew mi ñaanal président loolu nag mu ni dana ko wax ba ñëpp dégg koo xam ni jëfante naa ak moom boobu teraanga mi ngi koy sant di ko ñaanal yàlla li ci des nag moo di mi ngi guddi ngeen tàllal yéen ñëpp mu ñaan su ñaanee ñu def nañ daan def rek yewwi ko yal na yàlla yóbbu leen ak jàmm kon ngeen tàllal yéen ñëpp
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين tàlla leen amin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله الذي قد أوجد بكل ما أعدمه وبأحمده الحمد لله الذي قد أوجد بكل ما أعدمه بأحمد ربي فلا يسأل عما يفعل ونحن مسؤولون عما نفعل يا فاتح الأبواب يا مس
غير المغضوب عليهم ولا الضالين